yaa xayra dayfin aadaa bil bishri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin aadaa bil bishri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi bismillahi irrahmaani mbokk yi ba tey ci naafila yi ñuy jëlee ci xuratul ayni sëñ bi mu ngi fay wax ne guddi juróom-ñeenteel ga ci weeru koor ku ci naafila ñeenti rakka rakka bu ci na nga jàng faatiha benn yoon jàng suratul bi mooy tabbat yada ñetti yoon jàng suratul ixlaas benn yoon des na ko ca bindal tuyaabay muñkat yépp ak santkat yépp te dana mel ni ku wàcc ab kaamil te dees na ko ca bindal tuyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da koo yendoo woor fanaane koo julli te dees na digal ñaari malaaka ñuy far ay bakkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bis ba te yàlla dana nangu ak julleem ak kooram te dana ko dimbali te dana ko taxaw it ba kenn du ko mën a te dana ko musal ci seytaane ak ci njàqare yépp te bu bis penc ba dees na ko boole ca ña nga xam ne duñu gis lu leen di ragalloo ba lu leen di jàqloo te dees na ko ubbil juróom ñetti bunti àjjana yépp bu ko ca neex mu dugg te deesu ko xisaab jërë ngeen jëf yaa xayra dayfin aada bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi yaa xayra dayfin aada bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi